Cheikh Seck maa ngi lay nuyu euh, yaay euh, secrétaire général syndicat démocratique euh, des travailleurs ñi nga xam te ñoo nekk ci wàllum santé bi maa ngi lay jëfal bu baax di la dalal. maa ngi lay fay ma tële rek mhm. tey ñuy màggal bés bi nga xamante ne moo jëm ci doomu jàngoro ji ñu naan ostéoporose tey lan lay signifier maanaam li nga xamante ne mooy feebar boobu léegi. waaw ah, boo nee ostéoporose ostéo yax la hmm. porose mooy loo xam ni dafay mel ne rek fu max donc euh, yax moom dëgëraayam moo tax ñuy wax doomu aadama ku la gën a dëgër yax xëj na moo la gën moo la gën a dëgër parce que tey jii bu dee doomu aadama ay suuf ñoo ko lal muy tendon muy euh, ligament comme ni koy waxee kii ay muscle yooyu yëpp pour mu mën a am force miskil bi mën koo am dafay am fu muy jógee mu jógee ci cerveau bi mais loolu lépp bu ko defee il faut mu fekk fa yax yu mais dañuy xool ni euh, feebar boobu de dem ba nga xam ne nit ki yax yi li naan yax yu fënax am loolu naa la ko mën a waxee ngi mel ne rek bant bu max ndung ba lekk ba lekk euh, bant ba ba mu jeex ba lekkee bant ba ba mu jeex ci biti mën nga gis ni bant baa ngi taxaw waaye boo koy laal laal bu ndaw rek muy dam loolu mooy dal nag loolu la ñuy wax fracture pathologique maanaam nit ki day toog ci yàgg rek ñu la damm na fekk demul fenn déplacé wu ci lalam rek lay tëdd damm hmm. te la plupart ci ci poignet yi wala fi nga xam ni moom mooy fémur bi. mais loolu lan moo koy faral di ko lan mooy faral di indi loolu. waaw li koy indi lenn la rek la plupart ñi muy dal mooy ñi nga xam ne ay mag lan xam nga booy doog a judd moom nekk ndaw. sa sa croissance di dem sa yax day gën a day a développé parce que day am lu koy suuxat mais loolu ko doon suuxat day dem ba dafay jeex bu dee surtout jigéen parce que jigéen euh, bu fekk fekk mu nekk di mën di jur ak di wasin am na ay hormones yu bëri daf koy daf koy sécréter hormones yooyu nag dafay dooleel li nga xam ne mooy yax yi mais dina dem ba foo xam ne bu demee ba ay monopause hormones yooyu dafay wàññeeku bu wàññeekoo tamit dafay répercuté wu ci doole gi nga xam ni yax bi mënoon na koo am ak dëgërlaay bi beneen saa aussi mën na nekk ay traitement hormonal parce que jigéen ñi ñu mel ni surtout ay yi boo ci jël lu bëri bëri bëri bu yàggee aussi mën na bloqué lépp luy sécrétion hormonale ba indi yenn feebar yi boo amee maladie yoo xam ne li wax maladie des bases d'eau mana maanaam hyperthyroïdie da nga gis nit koo xam ni bët yi dafay génn fu mu nekk boo gisee put gi dafay xaw a mais tamit fu nit ñi nekkee di liw moom dafay tàng waaw yooyu aussi am na yenn cancer yoo xam ne aussi surtout ñuy jëm ci ci cancer wu yi yooyu aussi dina ko dina koy dina koy joxe. Mm-hmm. mais lan ay cause yoo xam ne day day day def mais aussi bu dee ci góor yi alcool. Mm-hmm. tabac maanaam alcool yeeg cigarette yeeg yooyu yëpp aussi. mën na indi genre feebar yooyu aussi yëpp aussi day wàññi kàttan ak doole surtout ah. mais nan lay faralee di dikkal nit ki nga xamante ne euh, moo amee doomu jàngoro jooju. waaw ki doomu jàngoro ji xam nga bu ñu nee yax moom dëgëratul nit ki foo ko fekk day am ay karam yaram bi day metti day tayal te moyen du geste rek mu daal di mu daal di dam donc moo tax par exemple ay nit ki day nekk koo xam ne man buy dox nii sax pour mu am équilibre sax day jafe lool boo gisee da ngay gis muy tëñax tëñax yi yaram bi day gaaw a métti day karam day diis day am jafe-jafe quoi loolu mooy mooy li nga xam ne aussi dinañ ko gis ci ci ci feebar bi mu mel ni jigéen ñi lay gën di faral di dal euh, ñu ngi naan 40 pour cent ci jigéen ñi nga xamante ne euh, seen at toll na ci cinquante ans ñu am ay euh, li naan fracture ostéoporotique tey ji lan moo tax muy gën a laal jigéen ñi waaw dama koy expliquer sànq li tax mu gën a jigéen ñi mooy jigéen mooy li lay wax rek sànq jigéen dafa nekk ci période du jur te lu muy jur dafa am ay hormones yu bëri da koy sécréter hormones yooyu nag plus que ngay ngay ngay ngay mënatoo dafay raréfier même loolu tax moom mooy tax sax euh, mënatoo mënatoo mënatoo mënatoo ëmb donc yooyu bu jeexee dafay dem ba dafay répercuter wu ci yax bi yax bi day dem ba ñàkk doole dootul amati doole bu loolu tamit. ren saa aussi jigéen ni ñu nekk di nekk ci yenn yenn traitement ménopause artificielle comme ñu koy waxee di jël ay ay ay yenn yenn garab garab yooyu xam nga day bloqué li nga xam ne mooy sécrétion hormone bi surtout ci ovaire bi nga xam ni moom mooy génn nen bi nga xam ne moo tax moo mën a tax jigéen ji mën a donc hormone yooyu boo ko sécrété tul tamit bu demee ba yàgg aussi te loolu dana contribuer hormone ci dëgëral sayax bi boo ko amatul mu ngi mel ni rek oto bu amul essence wala amul wala garab boo xam ne da nga ko war di suuxat di te arrosé woo dafay am ay répercussions ak ay conséquences. d'accord ki amee doomu jàngoro bi tamit ban traitement la war a suivre. waaw traitement bi ak suivi moom loolu ça relève ci compétence ki ñuy wax chirurgien dentiste bi dafa safrullah chirurgien orthopédiste bi mm-hmm. wala rhumatologue parce que ñoom mooy seen domaine spécialité ñun suñu volet volet rééducation la par exemple tey jii nit ki euh, am na jafe-jafe pour dox wala pour ñu opéré ko ba pare comme li ma lay wax sànq ci traitement bi ñoom bu ñu bu ni par exemple nit ki am na fracture col du fémur euh, ñu war a dindi bopp bopp tetu bi remplacé ko soit benn prothèse partielle de mur wala benn prothèse totale de hanche maanaam boobu war na mën a doxaat ñu jàngale ci lañ koy indi. mais d' abord bi ak euh, nga xam ni mooy chirurgien orthopédique bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo koy gérer bon am na ci yoo xam ne tamit mën na def ay traitement de fond dina am ci yenn feebar yoo xam ni ay déficit la yooyu ci base analyse yi mën la pour te renforcer loolu mën na nekk mm. loolu ça relève compétence di ki nga xam ni moom mooy euh, mooy rhumatologue bi wala chirurgien orthopédiste. d' accord traitement bi boo ko yéexee def tey jii na la la mën a jural. waaye li la mën a jural mooy mooy mooy mooy mooy fracture rek da ngay yomb damm-damm da lay yomb daal mën nga mën nga yeewu sax tëdd sa lal lay yeewu rek gis ni ne da ngaa damm ko te doo xam sax lu ko loolu la ñuy wax pratique pathologique parce que dafay mel ni rek comme li may wax sànq bant boo xam ni ay max dañ koo lekk ba mu jeex xam nga boo koy bu max rek wala nga laal ko tuuti rek mu daal damm damm donc prévention bi lu am solo la c'est-à-dire fexe ba aujourd'hui tey ji eh, nit ñi ci seen hygiène de vie ci seen lekk ak seen i conditionnalité ak yenn traitement yi ñuy bañ di ko jël ba muy yàgg yenn yàgg yi ba indi ay nañ ci wàll mais nga xam ne yaa dund aussi war nga ci am ay wàll kon prévention bi daal moo ci ëpp solo. ak yan complication ngeen di tàmm di euh, jànkonteel euh, tey jii bu fekkee ne ci wàllum prise en charge bi la euh, ndax am ngeen ay jafe-jafe yi ngeen ci yi ngeen ciy gis. waaw mais prise en charge moom complication yi moo di nit ki dem dox parce que xam nit ki dox moom yax yax moo koy téye mm-hmm. bu fekkee yax bi dafa fragile dootul am force pour mën a dox yooyu yëpp aussi fonctionnalité bu fekkoon ni koo xam ne ku daan liggéey la dem def liggéey bu fekkoon ni koo xam ne aussi am na activité yu yëpp dootu ko mën a def yooyu yëpp day nekk ci conséquence wu su mbir mi euh, mooy indi complication yooyu yax bi gaaw a ak yooyu yëpp conséquences yi la quoi. kër gi ñu dénk nag wàllum euh, santé wér gi tey jii lan la ci war a def ngir mën a gunge tamit ñi nga xamante ne ñoo amee doomu jàngoro googu le bon man xam nga du ma bëgg toujours ñuy wax benn feebar man pour man prise en charge de santé dafa war a global. Mhm. lépp la à tous les niveaux. donc ba am ay structures yu doy nañ fexe ba former surtout spécialité yi ma la doon wax sens. mu ci domaine rééducation fonctionnelle mu ci domaine rhumato mu ci domaine orthopédie yëpp muy spécialité ak yeneen parce que am yeneen feebar yoo xam ne tey jii kon gën a soxla mooy euh, personnel bu qualifié bu xarañ boo xam ne dina mën a jël en charge maladie fondamental bu weesoo formation boobu mooy ñu tabax ay structures yoo xam ne ay structures adaptées mais benn bi aussi surtout dans la politique de la prévention et de la sensibilisation nit di mën a def ay émissions yoo xam ne dina permettre ñu mun a xam nan la ñuy mën a wattoo surtout ci jigéen ñi parce que boo xoolee tey jii feebar boobu bu dee ñeenti nit la ñett yëpp jigéen lay dal benn benn benn góor lay moo ci am donc il impératif pour ñi nga xam tey jii dañuy nekk def ay traitement hormonal yi ni surtout wala ñi xam ne dañuy nekk di jël yenn yenn yenn garab yi ñu mën a contrôler wu éviter que yooyu xëy na am na lu muy faj mais mën na indi yeneen yi yeneen yi jàngoro ñi nga xam ne aussi dañuy dañuy jël alcool ñu arrêté ko parce que alcool baaxul di détruire cigarette baaxul dafay yàq yooyu yëpp ay éléments la yoo xam ni foofu aussi nit ñi dans le cadre de la prévention ñu parce que yaram lu ko gën a faible loo rek mooy mooy mooy yooyu moom yooyu moom mu dugg sa yaram ni détruire seen organe muy foie muy rat muy rein dootuñu mën a def liggéey bu ñu wax su ko defee yow da ngay fragile dafa doole dafa amati kattan ci leen kon loolu élément la bi mhm. kon Cheikh Seck maa ngi lay jaajëfal bu baax. donc di fàttali rek euh, ne yaay secretaire général u syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk wala sax ñi yor wàllum euh, santé donc di la jaajëfal bu baax ci euh, disponibilité bi surtout.